2017 da nga am un soutien important mu di soutien bu Serigne Moustapha Sy am na sax ñu jàpp ne 2014 euh, les 200 000 et quelques voix du PUR bokk na ci li nga xam ne moom moo renforcer euh, l'électorat de, de du, du mouvement Moustarchidine bokk mu bokk na ci li nga xam ne moom moo renforcer l'électorat de Khalifa Sall à Dakar on se rappelle euh, au mois de mars à la veille de votre placement en détention sëñ Moustapha Sy daf la apporter son son soutien aujourd'hui euh, c'est quoi l'état des relations yow ak sëriñ Moustapha Sy mën na fi sëriñ Moustapha di def gis nga yéen en tant que responsable moral bu pur. c'est quoi l'état de vos rapports est-ce que les relations se sont distendues man man je vais dama lay wax dara Serigne Moustapha ça fait bientôt quarante ans qu'on est ensemble du politique moo ñu boole j'ai toujours été socialiste j'étais responsable des jeunes socialistes Serigne Moussa doon sama mag doon suma kilifa doon suma sëriñ ñu ànd ba léegi te du wàññeeku te du teggeeku te du dara du ko dara du ci alter suma kilifa la suma mag la suma sëriñ relation bu yàqu su relation bu yàqu mënu fi am parce que relation bi li ko sos du politique du politique sëñ Moustapha en matière politique il fait des choix parce que dafa nekk koo xam ne yenn saa yi day bëgg joxe des coups de mais lu ñu seq du politique mais dama bëgg wax ni man mënuma jotee sëñ Moustapha mënuñu am problème parce que suñu kilifa la il jamais de problème entre nous politiquement lu leen neex ngeen wax lu ngeen jàppe baax na c'est pas mon le pur dans Yewwi ma ñu bëri nekk nañu candidat pur déclaré wul am bu pur déclaré wul candidature am ça veut dire que c'est un électorat boo xam ne dinañu ko conquérir est-ce que di nga sàkku le soutien. du du du pur et boo ko sàkkoo est-ce que am nga yaakaar ne actuellement di ko am wala est-ce que ça va échoir à Ousmane Sonko xam nga parce que pur aujourd'hui Ousmane Sonko la gën a la la la gën a jege de ci ci opposition xam nga da nga wax sa xalaat rek xam nga yow non du sama xalaat damay poser question tamit de poser xam nga question y a une forme interrogative da nga affirmer donc euh, li nga affirmer kay sa point de vue lu bëgg ma tontu la ci li non non y' a aucun fait y' a aucun fait aujourd'hui le PUR est plus proche de de de Ousmane Sonko que de Taxawu Dakar alors que le PUR a toujours soutenu Taxawu Dakar et Taxawu Sénégal ce point de vue la sëñ Moustapha suma kilifa la du ma xam moom pour ji nga li ma séq moom du ma ko wax ci mbedd et dama bëgg d'ailleurs rebondir ci loolu xam nga dans ce pays day bëgg am loo xam ni risque bu réy la ñun dañu doon réewu croyant muy ci diine chrétienne muy ci diine jullit au plan sociétal au plan sociologique socle bi nga xam ne bi Senghor créé nation bi ba pare pucc nga xam ne ñooy dëgërlaayu société sénégalaise suñuy kilifa diine lañ ci bokk mu yu jànguñ mu yu diine ji cette tendance à banaliser suñu sëriñ si c'est un danger parce que munoo saa yoo jaaxle seeti sa sëriñ saa yoo jaaxle dem sukkal ñaam su coow amee sax ñu ni sëriñ si waxatul te su jàmm nekkee ku la neex di tudd sëriñ nu mu la neex et cetera man sëriñ Moustapha duma ko ci dugal ci débat politique gis nga la may wax sëriñ Moustapha la may séq ak sëriñ Moustapha man ak sëriñ Moustapha la et c'est la même chose pour sëriñ diine yi fi nekk ak sëriñ chrétien ak prote catholique ak protestant yi fi ne nañ leen continuer wormaal gis nga société yu bari li leen di indil problème mooy seeni cëslaay la ñuy tàq tàqali ko wala ñu affaiblir ko et cette banalisation de nos autorités religieuses cette ce particulier bon ni ni ni diine ni suñu société tëdde cër bi mu jox kilifa diine mooy suñu cëslaay bu ñu koy foye buñ koy foye kooku bokkul ak ma laaj mais j'en profite rek pour wax ni au moment wu suñu réew entouré de périls salafistes djihadistes et tout ce qu'on réew yëpp yëngu suñu bos ni nemm nemm googu dafa am ñu ci teg loxo am ci tànk mooy suñuy kilifa ci jàngu bi comme ci diine d'islam nañ leen gën a wormaal nañ leen gën a dooleel nañ leen gën a respecter ne leen mettons pas dans le champ de nos contradictions politique buñ leen ci dugal buñ leen oyofal wala soofantal ba di leen néewal doole parce que soo néewalee doole loolu néewal nga doole sa société te nit ñi nag duñ ko nangu de parce que ku nekk gëm nga sa sëriñ te kenn bëggul ku yàpp sa sëriñ wala ku tooñ sa sëriñ ça dama ko ci defoon entre parenthèse pour dellu sëriñ sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha suma kilifa la lu ko neex def lu ko neex mel man duma ko def débat public su ma demee bay wuti sëñ Moustapha di wax ak moom xam naa fa may am dem wax ak moom